suratu nisaa yi mooy ñeenteelu saar ci kaamil bi suratu nisaa yi mooy euh, saaru jigéen wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi idnillah aaya bi daf ñuy jàngal kilifa am kilifa lu am solo la suñu borom bu ko neexoon mu sàkk nu andi ni fii ci kaw suuf te kenn du yilif kenn kenn du topp kenn waaye loolu neexul yàlla li neex yàlla mooy mu andi nu fii tànn yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam teg ko ca bopp ba ñépp di ko roy ñu jëm ca yàlla looloo soob sunu borom ku yebu nangul ko ko wama arsalnaa borom bi nee na yónni wunu min rasulin benn ndaw illa li yutaa lu dul ñu topp ko ah loolu nag yaatu na de si de yàlla nee na ma benn ndaw bu jëm si ci yéen yónniwuma benn yonent bu jëm si ci yéen lu dul dama ko yónni ngir ñu topp ka yàlla yónniwul yonent bi pour ñu koy tiitaroo maa bëgg yonent bi maa bëgg yonent bi seydna muhammad yaa leen gën yaa leen gën rek te la mu gënee defoo ca dara loolu taxul woon yàlla yónni yonent li taxoon yàlla yonent yónni yonent du du ñuy waat ci moom ak di barkeelu ci moom rek te la muy santaane defunu ko la mu digle defunu ko la mu tere bàyyiwunu ko kooku taxul woon yonent ñëw ci ñun kooku koy def doo jëriñoo yonent Kedalik dege ci ne borom xam xamit yalla indi wuko koi pour ñukoy titoro ak diko waté rek barki diw donte du wat sax nak nit ñi dañu xër rek barki diw barki nangam barki nangam lool du wat sharia konti wuko sax kon wat té nak yonent bi téré nako nak deug deug kon li tax ñu yoni borom xam-xam li tax ñu yoni yonent moy illa li yutaa ludul ñu top ko su dé dem nañ ba ñu leen top ñun ñu ben njëriñ ci ñoñu ñu ñu yoni te dañ leen di topp itam bi idnillah ci ndigalu yàlla maana yàlla moo joxe ndigal ne nañu topp yonent du nam nammam nag du maana du iraada boo xam ne kenn mënul mooy li yàlla santaane déedéet du loolu bu ñu koy def dañu koy def ci ndigalu yàlla mi wax ne bu leen yonenti digalee def leen bu leen teree bàyyi leen wa ma aataakum rasulu wa ma aataakum rasulu fa xuduhu anhu fantahu kon bi idnillah la ñuy toppee ndaw yàlla walaw annahum su fekkoon ne ñoom iz zalamu ba ñu tooñee anfusahum seen bopp jaawu ko dañoo ñëw ci yow yonentu tuub si kon yàlla dina leen jéggal ñoom def nañu njuumte bàyyi nañ fi sa kàddu bàyyi nañ fi sama kàddu dem topp seen bakken def li leen neex léegi nag ñu ngay réccu léegi ñoom buñ bëggoon lu yomb dañuy ñëw ci yow buñ ñëwee ci yow tuub buñ tuubee jéggalu yàlla suñ noppee ñu jéggalu la yow sa bopp nga jéggal leen ma jéggal leen parce que ñaari àq la àqu yàlla la ak àqu yonent mooy nañu yàlla mooy nañu yonent kon nag aji bàkkaar june su ko defetee nay bàyyi xel loolu loolu lim lay tegtal mooy kilifa am na de bu kilifa amul woon yàlla du doxale yonent ci diggante boobu naan ko jaa uuka gis nga jaa uuka lu tere iz zalamu anfusahum ba ñu tooñee seen bopp jaa uuka ñu ñëw ci yow yàlla waxul ñu ñëw ci man de jaawu ko ñu ñëw ci yow yonentu tuub si fastaghfirullah ñu jéggalu yàlla gis nga fastaghfirullah ñu jéggalu yàlla wastaghfara daal di jéggalu lahum ñe leen ar yenent bi yonent bi daal di leen jéggal ñaan yàlla pour yàlla jéggal leen borom bi nee na day bu ñu defoon loolu su fekkoon ne loolu la def kon dey la wajadullah danu dana ñu am fa yàlla la wajadullah dana nu fekk yàlla tawaaban mu nekk tawaab raximan di raxima tawaaban mooy koo xam ni mooy nangu aakoonu tuub koo xam ne heure boo tuubee mu nangul la du wax ne samay buntu bëccëg laa koy tijji guddi dama koy tëj du wax samay buntu guddi laa koy tijji bëccëg dama koy tëj ku dul moom nag am nga heure booy tëj sa buntu yàlla nag nee jaamam daal waxtu wu mu ko soobee rek na walbatiku fu mu ñëwee fekk man buur bi ma nekk tawaaban di koo xam ne day nangu ay tuub ci waxtu wu ne ci saa su ne raximan di nekk ku bëri yërmande du buur boo xam ne bu kontaanee rek baale waaw du buur boo xam ne bu bëggul rek de dootul baale yàlla xaal boobu doxu ci moom heure bu ne yërmandeem mi ngi daw seconde bu ne laxsu bu ne lu lu xel mënul daj sax ci temps suñu borom subhanahu wa taala def koy jéggale ko koy raximan mooy du ca dañ mukk di nekk aji yërmande du dañ mukk di nekk aji nangu tuub sadaqallaahu al azim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.